L'État doit rester fort sur certaines questions. Pourquoi? Parce que gis ngeen ay médias yoo xamante ni nii depuis que Ousmane ko wax ci affaire Casamance bi ñi ngi def lépp lu ñu man pour coow li jëm kaw pour coow li bañ a fay. ñu dem sax ba gis yenn ci ay médias mën naa ci lim ay tur lu mel ni euh, CFM muy groupe Futurs Médias lu mel ni Sen TV di D-Média ak Leral TV ak ay médias locaux yoo xamante ni nii. dañu nekk ci zone sud bi ñu gis ne dañu dem tàllal micro ñoo xamante ni nii ñoom la ñu tuddee ay rebelle ñu ne dañuy génn di tontu Ousmane Sonko par rapport li mu wax ci affaire Casamance mais aussi mel ni luy défendre Cheikh Yérim Seck gis ngeen à chaque fois bu fekkee France dañu bëgg a déstabiliser benn dëkk ñi ngi koy jaarale ci médias yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir dëkk boobu noonu ngir ñu defal leen ay propagande par rapport ak askan bi léegi nag pour man CNRA liggéeyam mooy fexe di xool média yi si yan anam lañuy ñuy joxee information est-ce que information yi ñuy joxe mënul yëngal dëkk bi mënul taal dëkk bi c'est parce que par rapport ak li nga xam ne am na média yi dem fi nga xam ne moom mooy si robeel yi tàll leen micro pour man loolu dafa bokk si li nga xamante ni nii mën na yàq li nga xamante ni moom mooy dundinu askan bi maanaam mën na indi ay fitna si biir dëkk bi ci diggante foo xamante ni nii ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñun ñëpp nekk ci biir senegal amul xàjji amul seen Casamance ak Dakar ak euh, Tamba ak Kédougou ñëpp ñoo yem ci senegal ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñun ñëpp ci biir Sénégal lañu nekk. léegi nag pour man CNRA rôle am mooy di xool média yi di leen saytu ci yan anam dañuy joxe information est-ce information bi bu ñu ko génnee mënul taal réew mi est-ce que information yi mënul indi jaxasoo. wala jiixi jaaxa si xelu askan bi loolu dañ ko war a moytu lépp loo xam ne mën nañ ko def pour moytu ko fan la problème bi démarré mooy France benn francaise boo xam ne dafa bëggoon dindi bind benn livre ñëw ne da koy présenté fii si Sénégal livre boobu noonu lan lay wax mooy Casamance bu moom bopp mag ay histoire Casamance ak ay nan la Casamance war a fexee ba jëlaat li nga xam ne loolu la moom ak yu demee noonu la maanaam pour jaxase peuple Casamance bi ak ñi nga xam ñoom ñooy état bi fi nekk parce que actuellement gis nga li ñu war a comprendre mooy France actuellement nii kontaanul si nguur gi nga xam ne moom moo fi nekk muy nguur président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Sonko te lépp loo xam ne mën nañ ko pour jaxase leen ak askan bi dinañu ko def parce que li ñuy def nii yëpp dañuy faire semblant rek mais France kontaanul bu ngeen ko xamee ak bu ngeen ko xamul. léegi nag il faut que ñi nga xam ne ñoom ñooy journalistes yi ñu def très très attention ci information yi nga xamante ni nii ñi ngi koy génne di ko jox ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal di xool ba xam est-ce que lii mënul taal dëkk bi walla mën na ko taal bu ko defee ñu moytu ko. aussi dafa am ay journalistes comme Cheikh Yérim Seck ñoo xamante ni nii toujours dañu nekk ci roolu manipulation diabolisation. toujours dañuy génne ay ay ay ay ay fausse information pour jaxase xelu nit ñi te lii nag je pense que dafa nekk loo xamante ni pour man waruñu ko caaxaanee lii warul bokk ci li nga xam ne dañ koy fowee affaire muy affaire u Casamance parce que jàmm lépp loo xamante ni lu dul jàmm rek jàmm moo ko gën comme ni ko olof di waxee kon général na jël ay responsabilité par rapport ak yenn médias yi nga xamante nii ñi ngi def ay propagande ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee ay rebelle te ñu nekk suñu ay mbokk Casaase te mu nekk ñenn si peuple Casaase bi parce que gis ngeen barki dem bi Ousmane ko demee Ziguinchor mbooloo ma fa génn opposition bu ñu demee Ziguinchor mbooloo mi génn topp leen parce que ñun ñëpp ay sénégalais la ñun ñëpp ñu ngi si biir Sénégal mais nag jàmm jooju noonu pour man képp koo xam ne nar nga koo yàq moo xam ngay média moo xam koo mën di doon l'État doit rester fort pour ne liikat kat du ñu nangu kenn di ko def loo xamante ni dafay yàq suñu nekkin si biir réew mi kon CNRA jëlal si ay responsabilités par rapport ak li nga xam ne moom moo xew ay médias di dem di couvrir ñi nga xamante ni nii juste pour lan parce que neexawuñ ak gouvernement bi ñu jaaree foofu pour déstabiliser dëkk bi te loolu kenn du ko nangu kon CNRA na nga xam lan mooy sa nga def ko sinon nag dëkk bi du ñu nangu kenn di fitna wala kenn di fi jëf jëf yoo xamante nii mën na yàq suñu nekkin ñun askanu Sénégal jaa ngeen jëf